am nañ autorisation provisoire pour séddale leen xaalis boobu leneen li nga xam ni am na solo ñu jàpp ko aussi ci séddale bi mooy jël benn enveloppe jagleel ko ñi nga xam ne nii am nañ ay candidats ci examen d'état maanaam CAP BP BT BTS ñu jox leen une partie donc loolu nak su ko président defee parce que dafa jàpp ne formation professionnelle du am solo ci réew mi bi mu nekkee ci bopp nguur gi ba léegi mi ngi yokk moyens yi nga xam ni ñoo jëm ci formation professionnelle yokk budget bi yokk centre de formation yi wax na sax ne subvention yi nga xam ne moom lañu jox école formation yi dañ ko yokk pour que ñu mën a gën a former xale yi parce que li mu bëgg xale yi nga xam ñi ngi génn CM2 wala troisième téeméer boo ci jël fan euh, fanweer yi trente yi ñu yóbbu leen ci formation professionnelle parce que wax naa ko ne li ngeen di def yéen en tant que acteur de formation centre de formation privé fi ngeen nekk di jàngal xale yi su ngeen fa nekkuloon état moo fa war a nekk donc quelque part da ngeen am mission de service public ci biir mission de service public boobu nag état jàppale leen taxaw taxaw leen donc maa ngi leen ci féliciter di leen ci encourager li ci des mooy bari na centre de formation professionnelle yoo xam ni public comme privé war nañ leen saytuwaat xool. ndax li ñuy jàngale méngoo na ak bëgg-bëgg suñu économie ndax li ñi fay jàngale mat nañ li ñuy doon ndax cadre bi ñuy jàngale jaadu jub na loolu moo tax ma wax sama service yi bu yàggatul bu soobee yàlla dina ñëw ci sant de formation bi def li ñuy tuddee audit loolu ci public comme pour xam ndax xale yi li ñuy jàng ak li ñu leen fay jàngal méngoon na ak mi nga xam ni loolu lañ bëgg ci suñu suñu xale yi donc xam ngeen ne suñu bëggee suñu développement tey PSE bi nga xam suñu référence de politique publique yi dafa sukkandiku ci mbay agriculture au sens large donc il faut que nous xalaataat formation yi formation xam moom la jox parce que suñu réew am na ay nit yoo xam ressources humaines de qualité mais tey suñu économie moo laaj nous am une façon xam-xam donc c'est ce que leen ci pour que yéen tamit ngeen xalaat ak ministère bi nan renforcer suñu offre de formation pour que mu dépôt ak suñu économie tey ci wàllu mbay au sens large su ma xee mbay nag du bay rek mais mbay càmm napp ak yu mel noonu war nañ ci tàggat suñu gone tàggat ci xale yi pour ñu am ci ñu am ci métier. ci wàllu ressource naturel am nañ pétrole am nañ gaz tey il faut ñu préparer suñu ndaw ñi pour que bu ëllëgee ñu mën a liggéey ci entreprise yi pour mën a jëriñ seen bopp mais jëriñ seen réew donc loolu yëpp nekk na ay chantier yoo xam ne nii war nañ ko ubbi pour que. liggéey bi nga xam ne moom la public def ak privé bi def mu bokk fu ñu jëm waaye mooy jax jël xale yi defal leen formation boo xam dina mu tax ñu mën a jariñ seen réew